ko di wuyoo ci turu Soxna moom la jox ay cadre yu témoignage yi nga xam ne jot ko dund ak seen ñaar dem bismillah aouzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi sant euh, yàlla mi nga xamante ni ñu may fekkee boobu ba léegi kon euh, yaakaar naa ni wax ci Sëriñ Atou moom yomb na yombul ndaxte féete woon na njaboot gi foo xamante ni bu fii ñu koy wax ak yow ku ne xam na ni bis bii ba mu dellusee euh, xel yëpp delluwaat na ci moom kon kooku yaakaar naa ni kenn waru ko mën a fàtte te ko fàtte ba mukk fu ñu toll suñu xelan ci moom ñuy ñaan suñ borom defal ko yërmande ca fa mu nekk ak mboolem jullit yam fa fekk ak ña ko fa fekk. waaw niñ ko dundee metti na mettiwul ndax day jëmm joo xam ne comme ni ma ko waxee léegi dafa neexul a fàtte ndax li tax neexut a fàtte mooy saa su nekk rek yaa ngi gis li nga xam ne moom la daan dund. ba ñi nga xamante ni bokkuñu ci njaboot gi sax loolu saa su ne ba ci téléphone yi ak télévision beeg yëpp a chaque fois yaa ngi gis ay réalisation ay waxam ay jëf yoo xamante ni day mi ngi dundaat ñun suñu kanam looloo tax euh, niñ ko dundee dina metti waaye nag gëm nañu yàlla sant nañu yàlla bu baax ndax xam nañu fii kenn dëkku fi waaw. waaw keroog ba mu demee sama xel lim jëkk a dem mooy ci kër xasida yi ndax da cee amoon itte joo xam ne ak yéene joo xam ne ku ne jàppoon na ni dina liggéey euh, kër gi ba jébbale caabi kon ba ñu ko yëgee rek foofu la suñu xel jëkk a dem ndax itteem jëpp kër xasida yi la woon fa la daan yendu guddee ko fay jële fa lay lekkee fa lay naane kooku kon bu fekkente ni nii nga xam ne kon mbir suñu borom la kenn mënta xam yow yaa ngi bëgg waaye doo xam ne suñu boroom di dogal keroog ba mu demee kenn ku nekk këru xasida yi ba léegi boo rombee ci taliba day mel ni jëmmam ma nga fa taxaw te ba àddina di tukki jëmm ji saa yu taxawee sa xel dina dem ci moom kon loolu yaakaar naa ni sart na nag ku am solo sëñ bi bu fekkee ne daf laa wóolu bay teg la liggéey bu toll noonu sa yaakaar naa ni kooku yombul ndax du ñëpp ko mën a nit ki bëgg na sëñ bi liggéeyloo ko te liggéeyloowu ko kon su sëñ bi joxee euh, liggéey bu toll noonu dangay war a xam ne loolu tawfeexu suñu daara ji yàgg ak suñu ànd cofeelam saa su nekk jéem na ko jéem bëgg di ko camoufler mais munu ko ba mu demee ba xamante ni lii xam olof yi dañ naan ragal féete euh, day euh, day xañe wërsëg waaye moom foofa du taxawaayam moom taxawaayam mooy bëgg na bëggeel ko nga xamante ni ba mu demee di explore di wax wax ju nga xamante ni kenn ko ne dina xam ne kii fii la féete loolu la bi mu koy def xanaa daaw la ci ziar ba wone boppam dëgg-dëgg ci position bi nga xam ne am na ko ci daara ji ak ci jëmmi Sëñ Aatu kon loolu euh, cofeel la gu nga xamante ni dafa yàgg ndax mën naa ni daara ji bi fi Sëñ Muntaxa jëkkee ñëw booba 1995 ba léegi vidéo yaa ngi daw te waxi démb mooy waxi tayam li muy wax saa su nekk moom lay wax gëmewu ma leen ba ma leen gisee am yàqin ci yéen laa fas ànd ak yéen te ànd ak yéen kon kooku yaakaar naa ni su fekkente ne dafa ñëw mel nii ci daara yow kooku moom wax dëgg yàlla du jaaxal kenn ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ñu ànd ak moom liggéey bi te di ko def nag ni nga xam ne kenn ni ko suñaatu bëgge woon waaw li may tëje rek mooy Euh, li ma ko waxee rek dellu kiiwaat ci suñu borom te xam ni li bis boobu jombul kenn li nga xamante ni moom la fi liggéey naal ko fi fii ba ñuy lem dënd bi nit ñi di ci teg seen bët ndax ni sëñ Mountakha wax ni fu ñu tuddee sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad tudd fa Cheikh Sidi Mata tudd fa sëñ Saliou nee na sëñ Atou rek nga cee may na teg kon moom bokk na ci kon Euh, ñi nga xamante ni foo tudd yoonu Mbour di leen tudd loolu nag ak cant lu gu rëy rëy rëy ci surtout ci famille bi nga xam ne ci la bokk ndax da ci am loo xam ne kenn amu ko ci kon loolu bu la ko suñu boroom defaree da ngay sant yàlla bu baax a baax baax ñuy ñaan ñu euh, njaboot gi ñëpp ñu yàgg koo taxaw yàgg ko ñaan fa mu nekk xam naa ni sax foofu ma nga fay dund mu de waaye yal na suñu boroom deful lu kawe njort yëpp xam naa ni moom wax dëgg yàlla li kii waxa ne dafa soor day dem day añi waaye loolu la def kon ñu koy ñaanal suñu boroom teeru ko ci aljan firdaw si mu dëkkaleeg Cheikhul Khadim bàyyi fi njaboot gi ñu yàgg di ko. doon na koo xam ne nii moom ton lenn loo xam ne bëgg-bëgg njaboot la moom mu ngi doon xool njaboot gi nu mu leen xittalee ci arxuraan ji ak liggéeyu sëñ Tuubaa bi ak yoonu murit bi bëgg tam moom ni mu doon dundee njaboot gi dundee noonu fi mu toll nii këram boo dee xool ki ci gën a ndaw sax moo gën a mokk alxuraan ñi ci ñi mag ñi jàng nañ alxuraan ba nga xam ne nii Euh, tey wàcce kaamil bi njabootam rekk mënoon nañ koo wàcce ndax dara jaaxalu leen ci alxuraan xasida yi tamit noonu mën nañoo jàng arxuraan mën nañoo jàng xasida kon suñu yar nañu yar goo xam ne nii wéet daal lañuy ñuy jooy ci moom waaye du du tarbiye du jàng alxuraan du jàngal nit liggéeyu kër du dara loo xam ne ni ñu ngi koy jooy wéet daal lañu lañ mën a jooy ci moom. waa loolu nag nekk na loo xam ne nii ci commencement bi daf doon metti mais soo demee ba nekk mag ngay xam ne kii lim bëggoon lim nekk moom ak ci li muy dund la ñu yar parce que boo gisee doom sañaar di nga xam ne kii doom nit ku yiw la dinañ sol yére yu baax mais dinañ muuru ba seeni cër du feeñ te dinañ def loo xam ne ni foo foo leen foo leen woo rek nañ fa mën a wuy parce que koo ci gis di xam ne doomu nit ku yiw la lépp lu doomu nit ku yiw di def rek boo ko xoolee njaboot sëñ aatu gi di nga ko gis yar na leen ci yar na leen ci lépp nag ba fenn fu ñu dem nu foofu mel dinañ fa mën a nekk ndax lépp lañu préparé bis bu tiis bis boo xam ne nii metti na métti goo xam ne nii doomu aadama mënu mënu du doon lu muy toog pour mën koo wax parce que lu kenn xalaatoon ci àddina bis biñ ko waxee métti na yow da ngay toog ba ni ñuy denc jee ba ñëw nga ne lii est que du dañ may nax mënoo doo mën a fexe yow ba gëm ne li am na parce que métti na méttiwul na lool lool lool man toog naa billaahi ba am une semaine te gaw ma ne si ñaata dem na parce que fu métti tellement doo comprendre sax bi may ñëw fii xaw ma nan laa def ba ñëw parce que avant ñu ma koy wax ni man nit ñi ñu ngi ñëw pour gàttandu si ma pour ba pour ñu bañ ma xamee ko sama kër mais avant ñuy ñëw fekk nañ ma xam ko affaire bi diis na lool métti na lool nag si njaboot gi yëpp yëpp yëpp nag waaye sant suñu boroom ndax siñaatu yar nañu yar goo xam ne ni dem na wante bàyyi na fi yar gi mën nañ fee nekk tey di toog nag di ko ñaanal lool lool fa mu nekk gënal ko fuuf fi mu jóge te am nañ ci yaakaar waaw